mbokk xarit yi ngeen ñeel cant ak gërëm ñu ànd ak yéen ci seen télévision Al Mourabitoun ñu fas ñëw génn ci seeni xibaar jëwriñ ji ñu denk wàllub koom ak yokkute di xam ne nag Mauritanie fas yéene na fas yéene na soppi li nga xamante ne nag moo di wàllub koomam jëm ci li nga xamante ne nag moo di wàllub koom gi ñuy wax économique bi ñuy wax croissance verte ngir mën a yeesal li nga xamante ne nag moo di wàllub koom ci ay taskati xibaar di amal ab taxawaay ci kanamu euh, kër gi ëmb kër ga taskati xibaar yi moom seen bopp ñu naan la hapa di mettitlu li nga xam te nag moo di euh, taxawal bi mu taxawal émission bi ñu naan Vis Samim wul Luulid eh, di xam le ne nag mouvement ERA yàgg naa taxaw eh, ci xeex jëm ci li nga xamante ne nag kon moo di mbennook réew Mauritanie wante eh, libere li nga xamante ne nag moo di réew Mauritanie ci jafe-jafe yi muy dundu ci loolu itam defaraat li nga xamante ne nag moo di seen diggante ñoom waa e waa e mbokk yi dalee nag jàmm ci seen xibaar ñu koy tàmbaleek wàllub koom ci kàddu yi jëwriñ ji ñu dénk wàllub koom ak yokkute ci réew mi di Mokhtar Ould Ndiaye di xamle ne nag réew Mauritanie dafa fas yéene soppeeku jëm ci li nga xamante nag moo di koom-koom bi ñu tuddee croissance vert maanaam ngir gën a dooleel nga xamante nag moo di politique bi ñu sos ngir mën a indi yokkute ci li nga xamante nag moom moo di croissance économique bi ci réew mi maanaam wàllu ba comme euh, ci réew mi wante mën a sàmm li nga xam te ne kon moo di seen alal ji xam te nag moom la ñu fas yéene euh, dugal ci wàll woowu ngir mën koo jagleel li nga xam moo di jumtuwaay yi war ci li nga xam te nag moo di wàllub euh, wóoróom bi maanaam wàllub environnement ci réew mi loolu nag Ould Ndiaye doon ko xamle ci ab atelier bu ñu amaloon ci Nouakchott ci lu aju ci linga xam te ne moom la ñuy wax croissance verte bi ñu croissance verte global bi ñu amal ci ndimbalu Euh, kër jëwriñ ñu denk wàllu ba koom ak lii ak banque mondiale ci àdduna bi ci loolu nag ñu fas yéene rek kon euh, taxawal li nga xamante nag moo di wàllub mbay mi ngir mën a dooleel li nga xamante nag moo di wàllub koom gi ci wàll euh, woowule ci wàllub koom ba tey ci beneen atelier bi nga xamante ne nag moom la ñu amaloon ci réew mi ci wàllub ah, li nga xamante ne nag kon moo di wàllub meew mi ci réew mi ñu amaloon ab atelier bi nga xamante ne nag indi nañ ci ay njàngat wante projet bi nga xamante ne nag mooy dooleel nga xamante ne moo di ah, produit bi ci wàllub lait maanaam wàllub li ah, di soow yi nga xamante nag moom la ñuy defar ci réew mi mu doon ab stratégie bi nga xamante ne nag liñ ci jublu moo di daal gën a dooleel kër yi nga xamante ne nag ñooy defar wàllub soow ci réew mi ba ñu mën a euh, produire li nga xamante ne nag dafay doy waa réew mi wante euh, ci li nga xamante ne nag kon moom lay euh, importé ci biir réew mi mu doon ab atelier bu nga xamante ne nag kon ay jàngat la woon ci wàll woowule ay taskati xibaar wante ñi nga xam ne nag dañuy yëngu ci site ci réseaux sociaux yi kon amuloon ab taxawaay ah, ci kanamu kër gi nga xamante ne nag moo ëmb këri taskati xibaar yi moom seen bopp ci réew mi ah, di la hapa kon ah, ngir metit lu li nga xamante ne nag kon moo di dogal gi mu yëkkati ci fan yi ñu weesu ngir taxawal émission bi ñu naan vis samim bi doon daw ci télévision al mourabitoun ci diiruk at ci diiruk ñaari at ñu fas yéene ko taxawal ci diiruk weer lool loolu nag tax ñi nga xam ñoo di taskat xibaar yi wante ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu ba euh, tas xibaar amuloon ab taxawaay euh, googule wante ngir mettitlu loolu nga xamante ne kon moo di ndogal goog nga xam ni Lahapa yëkkati na ko euh, ci émission boobule. ci wàllu woowu ba tey mu mel ni am na yeneen ak parti politique yu àddu ci wàllu woowu parti bu ci mel ne parti bii di UFP ñoomet ñoom it euh, wane nañu seen euh, métit ci loolu nga xamante ne nag moo di euh, ndogal ko nga xamante ne nag la xàppa yëkkati na ko ngir taxawal émission boobu ñu naan vis samim bi doon daw ci télévision Al Mourabitoun li ñu xamle moo di daal gisuñu lenn luy waral la xàppa war a taxawal émission boobule wante li ñu xamle moo di daal wane nañu seen lëkkaloo wante seen solidarité ak télévision bi nga xamante nag moo di télévision Al Mourabitoun wante nga xam ñoo di taskati xibaar yi nekk ci réew mi ngir ñu mën a jotali li nga xamante nag moo di euh, seen bataaxal bi ñuy euh, liggéey ci loolu nag ñu xamle ne nag war nañu taxaw ngir xeex li nga xamante ne moo di politique yi nguur gi euh, di dogal ci réew mi ngir mën a tëj taskatu xibaar yi wante ngir mën a nasaxal li nga xamante nag moom la ñuy wax moom sa bopp ci wàllu wax ci réew mi réew Mauritanie di yónneewaat euh, ay soldats yu takku ci fële nga xamante ne nag moo di euh, Centrafrique euh, ci loolu nag jëwri yi nga xamante ne nag moom la ñu dénk wàllub kaaraange ci réew mi di xam ne nag loolu nga xamante ne nag moo di takk der yooyu ñuy yónnee fële nga xamante ne nag moo di Centrafrique kon toll nañu ci ñaar téeméer ak juróom fukki éléments yi nga xamante ne nag war nañu dem ci semaine bi ñu mu mën a fekki soldaar yi nga xamante ne nag jotoon nañ leen yónnee war na ñu war a toll ñoom ñëpp ci juróom-ñaar téeméeri soldaar yi nga xamante ne nag war nañ leen yónnee foofu centre Centrafrique kon moom Diallo Mamadou Bacca moom jëwriñ ji di xamle ne nag loolu nag dañ ci taxaw ginnaaw euh, dëppoo gi nga xamante ne nag signé nañ ko ak euh, kuréelu mbootaayu xeet yi di Nations uni ngir mën a taxawal wante sàmm li nga xam ne nag moo di wàllu jàmm ci fi nga xamante ne nag nekk moo di euh, Afrique ñu terale ak yéen ci conférence de presse bi nga xamante ne nag Ullu Lid moo ko amaloon ci réew mi ci lu aju ci taxawaay bi nga xamante ne nag waa IRA yëkkati nañ ko jëmale ko ci moom maanaam moo di daal fas yéene ko génne ci mouvement bi loolu nag Ullu Lid moom di xamle ne nag euh, loolu nga xamante ne nag moo di mouvement IRA kon doon na mouvement bi nga xamante ne nag yàgg naa taxaw ci yoon yi nga xamante ne nag moo di seetal réewu Mauritanie wante fas yéene defara li nga xamante ne nag moo di diggante yi ci loolu moom lànk na bañ ba tëdd ci naaj wi ci lool nga xam xamante nag moo di décision bi waa IRA yëkkati mu jugee ci fi nga xamante nag moo di biir prison bi maanaam ngir jëlee ko wante génnee ko ci li nga xamante nag moo di parti IRA ci loolu nag ul ule it ba tey di xamle ci ab conférence de presse bi mu amaloon ci Nouakchott di ñaan ngir ñu bàyyi njiitik IRA di Biram Ould Abeid ak kamu àndal di Ibrahim Ould Bilal ñi nga xam moom la ñu tëj ci prison bi ci loolu nag di xamle ne nag moom ak ñi mu àndal ci waa IRA dañuy fas yéene saa di tënku ci nga xamante nag moo di bokk ndey bokk baay ci réew mi wante sàmm li nga xamante ne ko kon moo di askanuk réew mi euh, ñoom ci loolu nag la taxaw euh, saa su ne yi fii lañ yam ak ci seeni i xibaar dañu def lu dellu seeg yéen ci boppi xibaar jëwriñ ji ñu dénk wàllub koom ak euh, ak yokkute di xam ne nag réew Mauritanie dafa fas yéene euh, dugg ci li nga xamante nag moo di koom bi nga xamante nag moom la ñu tuddee euh, croissance verte ngir mën a yeesal nga xamante nag moo di wàllub koom ci réew ay taskati xibaar ak yi yëngu ci wàllu réseaux sociaux yi di amal ab taxawaay ci kanamu kër gi euh, ëmb këruk taskati xibaar yi ñu koy wax la HAPA ngir mettitlu euh, ndogal gi nga xamante moom la yëkkati ngir taxawal émission bi nga xamante nag moom la ñuy wax Vis Samim ci télévision Al Mourabitoun ci diiru weer Ould Walid di xamle ne nag euh, mouvement ERA yàgg na taxaw euh, ci yoon yi nga xamante ne nag moo di yoon yu muy xeex ngir seetal réew tani wante defaraat euh, seen diggante ci loolu nag lank na décision bi nga xamante ne nag waa ERA yëkkati nañ ko ngir génnee ko ci mouvement mbokk yi fii la ñu am ak yéen ci seen i xibaar def lu dul di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah di rafetlu ànd bi ak kóolute bi ak télévision wal muxaabituun di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.